Le ballon de Cheikhou Kouyaté qui donne le défenseur central. ma ngay dem ma dem jox na copain bi le numéro 14 ñoo ngi laal laale def ballon pour les. ah quel joli geste. Famara. latéral bi dugal na profondeur bi mais mujjul jàll le ballon de Pape Demba Cissé pour Cheikhou Kouyaté. Quando há pobres demos ele bono da cuiate, a cuiate mong freestyle. Então foi. Que recuperação. Le ballon pour les rouges. Ah, mong da mong la la le sia cuiate. Mira bene. Mira bene. Le ballon. Ah, quelle gol ba jox na latéral bi latéral bi delloo na ko ak central bi ak central bi pousse na def na benn si milieu terrain bi contre orienté ah mais quel marquage gars dafa mel ni de ah tir bi manqué na la récupération pour le pour l'axe central ah bi naaj na le ballon le ballon le ballon le ballon oh <laughs> वह क्या रहता है सीमेत ನಂಗೆ ಲಾಲೆ ನಂಗೆ ಲಾಲೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮಸ ವಿಕೆನ್ ಡುಗಲ ಗುಳ್ಳೆ ಲತರಾಲ್ ಬಿ ಆ ಮೇ ಕೋ ಕುಂಡಾ ನಾನ್ಲರೆ ಮೋಂಗಿಡ ಎಲ್ ಪಪಿಸ್ ದೆಂಬ ಸೀಸೆ La récupération, axe central, oui. Daf na ben relance pour 19 bi mais quelle récupération ah bal baa ngi noon de bal a ngi si roxo bi ba léegi génnagul ba léegi génnagul ah Famara Diédhiou Famara Diédhiou Famara Diédhiou Papis Demba Cissé oh kenn raté la tiré Cheikhou Kouyaté oh Yadé Yadé dugalal loolu waay Yadé ah dugalal loolu waay dugal ko waay dugal ko waay sam waa ji mais match bi dafa mel ni métti na de dafa mel ni 0-0 la de waaw ah, waaw. mais mais mais mais. match dafa mel ni. Papis Demba Cissé moom dafa mel ni tey moo géré latéral droite bi waaw moo ngi lal laale mais latéral gauche boobu foofu saf na sàpp de waaw. Diédhiou la l'international sénégalais waaw moo ngi def pressing le marquage mais mujjul am bal bi la récupération pour Papis Demba Cissé oh quel Oh, quel pauvre! récupéré nako passement de jambe passe na ñoo ngi laal laale latéral droite bi quel contrôle Famara Diédhiou moo ngi koy marqué mais mujjul am dara latéral bi nee na ko du baax numéro 6 baa ngi jeeg jël pour l'excentré oh quel geste technique mais ça n'a pas pu marcher le ballon pour le numéro 6 la récupération de multicolores mu ngi pousse mu ngi xool ku mu ko jox jox na ko latéral droit ba quel contre orienté a ah, ñoo ngi wuure le ballon pour Famara Diédhiou Famara Diédhiou ñu xool lu muy def ah mais technique bi mujjul dem ballon pour les oranges ah waa ji nee na ko du baax quel louche oh oh joli geste dugal na profondeur mais mujjul jàll gardien bi jox na latéral goos bi latéral gauche baa ngi defar delloo na ko ak central bi jox na ko latéral gauche bi bal bi demaat na si ak central bi pour gardien Cheikhou Kouyaté Cheikh Kouyaté jox na ko milieu terrain bi pour le latéral gauche latéral gauche bi ñu xool lu mu siy def delloo na ko latéral droite bi le ballon pour Famara Diédhiou ñu xool lan la siy def Famara Diédhiou moo ngi defaraat tourné ko delloo na bal bi ginnaaw pour latéral gauche bi laal laale ñoo ngi laal laale boobu mooy wure la Barcelone Papis Demba Cissé laaj na bal bi mais mu jóg ko am la récupération pour les oranges passe na ko numéro 9 bi ah mujj na ko loupé gardien bi jël na balle bi le ballon de Cheikh Kouyaté jox na ko central bi oh quel transversal pour Papis Demba Cissé ah Papis Papis daf si dara waay Papis latéral droit bi jox na ko numéro 6 bi contrôle orienté changement de jeu pour le numéro 8 ah mais quel joueur waa ji bandi la de delloo na ko mais mujj na ko récupérer pour les mille ko Famara Diédhiou ñu xool lu def Famara Diédhiou Famara Diédj daal mooy foo jox na ko ah passe passe adverse ñu xool lu mu siy def ah le but <laughs> mais euh, boobu nag mujj na yomb de dafa yomb trop sax dafa. pege pege <laughs> bro.